parce que soxna Aida Diallo mu sëriñ Saaliw mu sëriñ Béthio di ku baax ma bëggal ko sama bopp nag wax dëgg yàlla mu nekk suma yaay suma lépp vraiment ma am cofeel ci moom cofeel boo xam ne muy jëf ji muy jëf ci yoonu sëriñ Touba jëf ji muy jëf ci sëriñ Saaliw euh, te ren nag man ku nekk xam ne chaque année lu moon di def ba ñëw màgg fii lay màggale Touba ay gàmmu dama fay dem yeneen dama fay dem mais Touba moom mosuma gàmmoo fudul mosuma màggale fudul Touba wëlëre la sama lépp la muy ku moo xam ne dama ko naw muy koo xam ne macha allah li mu def li mu doon tey wala li muy def tey Serigne Béthio leeram ba moo ko digal muy ndigal boo xam ne mooy ndigal bi xam ne yàlla moo ko wax ci boroom kër sa borom kër bu la bu ñu la mayee sa papa amul ci ndogal kenn amul ci ndogal yaa ci am ndogal te Serigne Béthio moo taxaw ne ko avant ma ñëw si Serigne Béthio sax Serigne Serigne saali moo taxaw ne Serigne Béthio sa màggal sama màggal ñëpp dégg ko. Euh, ñaata seex bi ñaata seex la Serigne Saliou seexal. bari nañ bari nañ koo ci dégg. seex Béthio rek da ciy dégg seex yi mot nañ ay junniy seex mais Serigne Béthio li ko sëriñ Saliou defal li ko Serigne Saliou roof roofu ko keneen man Idda maa ko wax. xam nga lan moo tax Serigne Béthio mooy jëf-jëf joo xam ne macha allah ku nekk xam ne ne euh, seex yi bari nañ fas bu ñuy dàqee am na ku jël pee man mën naa ne seexu sëriñ Saliou yi. Serigne Béthio moo si jël pay ba mu tëdd àdduna ba léegi tey mu nga tëdd ca côté Serigne Saliou tey Serigne Saliou bëgg na ci moom waaye li mu fi bàyyi woon di ko doxal bu doon 100 la ko bàyyi essence yi li sës ci moom yóbbu nañ ko 1000 barke Serigne Béthio xam la moo tax ko man Serigne Béthio dama ko dama dund ak moom barke Serigne Béthio bi muy ñëw Caaroy section Caaroy man maa ngi fa woon kon xam naa kan mooy Serigne Béthio riiru ma ñëw Serigne Béthio déedéet parce que laa bëgg. Serigne Saliou mooy sama gàllaaj mooy sama lépp donte Baye Fall laa waaye Serigne Saliou dafa def ci man loo xam ne kenn def ko ci moom barke Serigne Bàjjo moo tax may topp soxna ay des ci jëfam jëf ji nag ku nekk xam na ko ku ne ngi jëf barke Serigne Bàjjo soxna ay des ku nekk xam ne li muy jëf ci yoonu murit barke Serigne Bàjjo billaahi wallaahi gisuma koo jëf ci yoonu murit j'ai bien pesé mes mots musuma jox dara bëgguma daraam xam na laa bëgg jëfam jëf mooy lépp ku gis waxuma la nagu gàmmo yi macha allah mu ñëwee nagu gàmmo yi waxuma ko de mais li muy jëf ci daara yi kan nga gis fii ci Sénégal chaque vendredi muy séddale téeméeri daara 2000 daara di ko séddale chaque jour ay bernde. mooy togg aajuma yi togg aajuma yi xam nga ñaata mbana la ah 200 mbana chaque jour ba ma fay gëj om yokk na 200 mbana chaque jour ak la cay dem pomme banana lépp loo xam ne rek day dem ci biir soxna Aida Diallo da koy jël yóbbu ko ay tout tànk yoo xam ne day jàng alxuraan. ba pare chaque bi ñu wàccee fa onze kaamil wala douze kaamil kon kooku li ko ñor mooy Serigne Béthio waaye li ko ñor mooy Serigne Saliou fasanga ma nekkoon tey mu di ki nga xam ne moo di Serigne Béthio yoon boobu la ñëw tey lépp la ko Serigne Béthio bàyyiloon tey yóbbu na ko cent kooku mooy soxna de Saliou ku nekk xam na ne ga màggal gi li mu ci def Serigne Serigne Saliou Serigne Touba waxul màggal gi lu ci waaye def jigéen wala góor dana jëf ku ci jëf dërëm boo ci jëf ak nga jëf million ku yaakaar ku nekk xam na ne jëf ji sëriñ euh, Béthio doon jëf sëriñ soxna Aïda Saliou daf koy dafa ñëw doublé ko barke sëriñ Saliou du ma wax lu ma gëmul parce que dama ci teg sama bët toog ak moom muy ku ma bëgg ci jëf ji nit ñaar nga ko toppee muy jëf ak jikko ak xol rafet barke sëriñ Béthio te soxna Aïda Saliou jëfam rafet na xolam rafet na te mu ngi def rafet kon yaakaar naa loolu laa ko toppee topp ma ko leneen barke sëriñ Saliou man sëriñ Saliou laa gëm kon soxna Aïda Saliou te dafa nekk yoon boo xam ne kenn wax ko ko muy boroom këram Serigne Béthio moo toog ne ñëpp toog loolu luñ bind du loo xam ne dañ ko xaatim wala lenn duñ ko xaatim sax mën na effacé wu gome dem mais dafa toog jëmmam toog ñëpp toog mu ne naa de soxna Aida mooy man maay moom jëfam mooy sama jëf lu mu ko wax lu def maa ko def loolu ku mu doyul borom kër te dañ ne sa borom kër boo boo nekkee ak moom tey ñu woo la ne sa yaay dafa feebar. nga tàgg ko mu ne bul dem bul dem nga woo ko ñu ne la sa yaay dafa mu ngi sukkuraat ñu ne la bul dem bul dem ñu woowaat la ne sa yaay génn àdduna nga tàgguwaat sa borom kër dara la bul dem waroo dem kon borom kër for na ci li nga xam ne moo di soxnaam kon jëf ji muy jëf te yaakaar naa Serigne Béthio ba mu ne ba léegi ñaata at la jëf ji musul barki Serigne Saliou jëf ji musul wàññeeku day yokku rek barki alxuraan day yokk ñuy am mbégte saa su ne te bu nekk bu dëgëru loon bu nekk doon loo xam ne borom këram jox ko ko barki Serigne Saliou Mbacke du dem waaye tey day gën a dem bañ nañ ko dañ doon léegi xam nga ba àjjuma kenn benn taalibe mooy def togg ndog yi mooy jëf-jëf ji benn taalibe day xool benn taalibe benn jëwriñ benn universitaire mu ne ko ay jëf-jëf ji mu jëf ko loolu Serigne Saliou moo ko defal Serigne Béthio Serigne Béthio defal ko soxna Saliou chaque togg àjjuma 200 bana 2000 daara la ñuy wër prison yi moo xam Mbour la moo xam Dakar la moo xam Diamniadio fu nekk ba pare hôpital yi ba pare jàkka yi kan moo koy jëf-jëf ji parce que Serigne benn jëmm moo koy jëf ci réew mi la la wax muy soxna Aïda Saliou dëgg dëgg Serigne Béthio barke Cheikhul Khadim li ma wax nii ma dama ko maîtriser quoi parce que dama dem ba kon jëmm jooju day gën a jëm kanam parce que dafa nekk ci ndigal nañu bàyyi li ñuy def dafa nekk ci ndigal bu ñëwee itam soxna euh, ki nga xam ne moo di Serigne Saliou Thioune ndigal macha allah gis nga jëf ji muy jëf ku nekk xam na ko màggal gi da ciy def ba yoratul dara lépp lu am màgg lu ñuy day vidé boppam loolu mooy parce que dafa nekk yoon bi yoo xam ne moom la waajuram nekkoon muy Serigne Béthio kon waxuma la ñooñu nga xam ne ñoo nampatal Serigne Béthio mais képp koo xam ne rek sës nga Serigne Béthio tey barke Serigne Saliou loo dugg ci li Serigne Béthio doon dem kon màggal gi Serigne Béthio daa mel ni moo koy màggal barke Serigne Saliou nga dem Touba fii mën na salaam macha allah nga ñëw fii janatu Serigne Saliou cun ndigal gis nga li muy def jëf di muy jëf danga naan Serigne Béthio jógewu fi te noonu la demee Serigne Béthio jógewu fi ba léegi sëriñ Béthio mu ngi fi ba léegi jógewu fi li tax xam ko man gëm naa ko parce que xam naa ne man murit saadix laa barke Serigne Saliou waaye gars yi nañuy bàyyi maanaam yàq nit wala defal nanga nit soxna Aida Diallo barke Serigne Bamba kenn ëppalewu ko ci jëf ci jëfu Serigne Touba bi Serigne Touba jëf la wax waxul leneen jëf la wax waxul leneen barke Serigne Bamba te bu mu doon jëf boo léegi mën na 6 ans est ce que dégg nga mu fakkastalu est ce que dégg nga mu dellu ginnaaw boon def 10 000 nag mu ngi def 15 000 nag ren xoolal nay xoolal gëléem yi xoolal ginaar yi xoolal euh, béy yi kii dëgg dëgg Serigne Béthio barki alxuraan te gëm naa ne man la Serigne Saliou roofal Serigne Béthio rocc na ko roof ko kan soxna Aida Saliou borom togg ajjuma yi borom social yi borom madame salaam barke Seexul Xadim ñu bàyyi la nga tàggatoo gaay kontaan boo may wax ci maanaam lu jëf ju jëm ci Serigne Saliou man damay aalu parce que ma def li ma doon man li mu dox ci man barke Seexul Xadim sama bu ma ko nett li fii barke maam Cheikh Ibrahima Fall du àgg billaahi walaahi wa taala barki Serigne Saliou donte dégg ma man Baye ku ma xam-xam ne sëñ Idaali Fall bu ñaari Baye Fall la ñu tuddee sëñ Moustapha Fall mooy sama Serigne te suba fa laay dem màggali barki Seexul Xadim mais Serigne Béthio Serigne Saliou. lan la Serigne lan la sama diggal Serigne Saliou boo ko wax tey barki Seexul Xadim bi ñu fi jógee Serigne Saliou mooy sama gàllaaj fa yem mooy sama lépp saa ma jaaxle barki Seexul Xadim nekk école Serigne Saliou laay woo lan la léegi bi ma tëddee fii sama maa ngi yuqel yuqel metti def naa lu nekk garab bii dama ko jënd 7000 francs barki Seexul Xadim galo moo ko oh. mais dama tëdd jàkkaarloog photo Serigne Saliou bi man Serigne Saliou mooy sama lépp bàyyi fa àllaa mais ma jàkkaarloog Serigne Saliou tëdd maa ngay wax ak moom barki maam Cheikh Rafal ci ci nga xam ne yokkeel bi jaaxle woon na barki Serigne Saliou waaye yàlla oh. Serigne Saliou non Idali bul jooy eh, bul jooy bul jooy ndeysaan oh, émotion bi ndeysaan اللهم